yëkkati na yaa ko tey wala dangaa fàtte tribune yéene kaay ne kaay ma fàttali la coowal contrat 45 yi nga xam ne daal dinay am ci wàllu armement bi ñu bëgg koo fàtte gas suul tribune du fi am yéene kaay bi dee média bi ne ma l'enquête baa ngi am arwa barka la def ci enquête daal di andi ay gindi nag ngir baaxe ko sénégalais yi moom arwa daal di xam le ni ci contrat boobee lu ëpp ñaar fukk ci milliards ci surfacturation la tribune yéene kaay ne leer na ne surfacturation am na na ni contrat ba jaarul yoon waaye kan la naroon dem arwaane commande yi nañ ko defee ànd ak cuune ministère des finances bokk ci ñi xaatim contrat bi loole tax na nag contrat boobee du bokk na ci code d' appel d' offre bu marché public yi tribune yéene kaay ne ma la ca gën a yéeme mooy ay façon moto yoo xam ni daal dinañ koy commandé te xam ni mooy defar moto yi xamle na ni moto yooyee bàyyi na ko joxe 2008 ba tey ñu daal di fay commandé loo xam ne nii daanaka takk der utiliser tu ko muy junni ak juróomi téeméer fusil d'assaut ak junni ak juróomi téeméer semi automatique lu yàgg laa lay tribune yéen a kaay ko xamle arwaana lii ñu commandé lépp boo ko doon xayma ci fukk ak juróom benn milliard lay toll wala gën kaa bari bari ñaar fukki milliards tey jii ñuy wax waxu ñeen fukki milliards ak juróom kan moo moom xaalis bi tribune yéen a kaay xamle ko ak kan la coow lii di daal di profité 24 kaay ne en moom réewum Sénégal day ma nga ci jurisprudence frère groupa yu Afrique du Sud yi ka xam ni moom lañ defoon contrat bi ab mandat d'arrêt a kaay ne loo yéene kaay sampub laaj ci ban réew dëgg-dëgg ci la ñu nekk ndax nag buñ demee ba réew moo xam ni brutalité policière ma ngi fay am ñuy jàpp nit di leen patam patamee di leen tañ-tañee te kenn xamul lu ko waral réew moomee jar naa laaj ëllëgëm yéene kaay bi ne ma ñu jàpp Pape Alé Niang ab taskatu xibaar fii ci réew mi moom Adama Gaye ne Sénégal daal mi ngi soobu ci lëndëm goo xam ne nii dara waralu ko lu dul ab dictature coowal suite bote li jeexagul moom yoon ne ab preuve scientifique bëggul gars yi nag tiit ci ab changement de régime ëllëg ak la tiital lool tribune yéen kaay ne ma Pape Alé Niang day daal dinañ koy jàpp saa si tembe ndax nag faux rapport boo xam ne nii ci gendarmerie la bàyyee côté Pape Alé Niang wax ne loolu yor moom Pape Alé Niang ñu koy toppee diffusion de fausses nouvelles ak recel de documents administratifs yoo xam ne dañ koo classé top secret yéen bi ne ma document yu police ak yu gendarmerie yu authentique na waaye rapport yi ñu ne ci gendarmerie la daal di jógee moo amul libération waxtu wa nga xam ni ma nga doon soppi pën ak wotoom Pape Alé Niang ne ay awokaam dañ maa enlevé kenn ci ay awokaam maître Ciré Clédor Ly ni léegi dootul enlèvement la libération yéeni kaay ne ko may ma ma yeggali booru 15 ko jàpp moom Pape Alé Niang ko xamal ni mi ngi garde à vue maître Ciré Clédor Ly ci ba ñu ko jàppee ba waxtu ne ko mayaat ma moom parquet bi day ma nga jëfandu ba ba mu teeng a teeng ci article 64 article 80 ak article 363 bu code pénal Déthié Fall ne démocratie bu réewum Sénégal daal saa bu xëyee di ko agressé saa bu xëyee di ko patam patamee saa bu xëyee di ko rëj rëjee te régime bi fi ne moo koy def critique yéen kaay ne ma Khalifa Ababacar Sall nee na dina ko utali avocat maître Ciré Clédor lii ci vox populi daal di xam ni tey jii nag Papa Alé mënuñu koo woowe lenn lu dul ab détenu politique ab ndëgg sërëx gu ñu ko tegal la moom Papa Alé wax ji wax ji koo bëgg a dootul addu ci mbooloo wala juróomi at loolu la ñu bëgg vox populi ne ma taskatu xibaar yi day ña ngay jàppale ñoom ñi papa aala ñang ndax jàpp nan ne saa si ci boppam moo nekkub danger tribune yéene kaay ne ah ah mbaadu Sénégal ci boppam moo nekk ab danger ndax nag coowal suite booti lii soo moytul nag dina dugal Sénégal ci guuta diggante ay politiciens la yoo xam ne nii daanaka dañuy reyante seen biir te kenn nag du ci perte ku dul askanug réewum Sénégal ndax nag yéene kaayub dee média bi daal di may xamal ne bu nekkee nag ab rapport interne bu gendarmerie dafa daal di fuite ñi cay xamle nii am na geneen rapport goo xam ni moo fa jóge woon te boobee dafa suuxlu ab opposant te bu vrai bi ñu daal di génnee bu vrai bi nag Sénégal ci boppam fu mu jëm ëllëg suñu ay institution yi ñu gënoon yaakaar fonkoon leen lool su nekkee di nag foofee la ñuy daal di defee ay coup bas askan wi nga xam ni ci ñoom la ñu wéeru fu nu jëm askan wi nga xam ni saa si tembe ay homme politique nekk ci réew mi fàttali leen moom leen ñooñee bu nekkee ni nag ñooy wéeru ci ñenn institution ñu jàppale leen ñun fu ñu muy daal di demee coowal suite boutique yi di ko raame ndànk-ndànk di dem ñi ngi jox dëgg nag ña nga xam ne dañuy wax complot la critique yéen kaay ne ma ak lu mënti am daal acte deux dina am diggante Ousmane Sonko ak Adji laaj ba mooy acte deux ba mbaadu doon ab confrontation l'enquête quotidien ne ma coowal aji saar li jeexagul de ndax nag coowal ADN bi ADN bi ci boppam ku mu neex nga ne doo ko joxe ndax ab acte médical la waaye nag attention l'enquête quotidien ne ma article cent quarante neuf ak yi ca topp yu code bu procédure pénale bi mën na nag wàñ loxo ngir ñu daal di amal acte boobe yéen kaay bi dama test ADN ab uti la boo xam ne nii bu incontournable la ndax mën naa tax nag ka nga xam ni moom lan jiiñ ñu setal ko wecc wala it mu daal di taq ba faw fa yàllaahu mambay ñang ci Sud Quotidien daal di xam le ni coow li coow li mooy daal test ADN bi nañ ko defi ndax nag Adji Sarr ci boppam moo tuumaal Ousmane Sonko ne da koo sàkku dem uti ab certificat médical ñi ànd ak Sonko ne certificat médical bi da koo setal waaye ci papier bi dañoo xam le ni am nag prélèvement boo xam ni def nañ ko ci Adji Sarr doyen des juges daal di sàkku Ousmane Sonko defub test ADN bu Ousmane Sonko tax ni defuma dara ñi ànd ak moom ne deful dara gaa yi jug manifester ba ay nit faatu ca tey jii nag ñu daal di koy xamal ne defal test ADN bi ndax moo lay setal ba faw daal di bañ am na lu muy niru coow li coow li mambay ne dëgg bi ci boppam la ñu bañ mu génn mambay ne Ousmane Sonko nag bëgg ak bañ a ci yem testadeen bi par force la koy def te mambay ne du fa yem ndax dossier ña faatu woon mars 2021 it mi ngi ci table ba dañu xam ni la amoon mars du amaat ndax gouvernement bi ci boppam waajal na boppam tribune yéene kaay ne ma déggoo ma de ni ñuy wanee ni dañuy jëfandikoo suñuy institution ci yenn ciy dossier loolu it mën naa tey xel ci coowal suite botti li wal fajri moom daal di xëy sampub laaj lan la Idrissa Seck di waajal ndax nag Idrissa Seck mi gi mobiliser ay troubam bi laaj bi mooy lu ndaamal kajoor di waajal Dakar Times ne Sénégal lim nara ñàkk day bëri na lu toll ci téeméer ak ñaar fukki junniy tonnes marchandise yoo xam ne Moscou da ko jébbal Mali boo moytul Conakry lay jaar CEDEAO mi tëj Mali Guinée lank boo moytul ñooy jël ko par ga ca ëpp Le Soleil yéene kaay ne ma boobu président Macky Sall dee ngi nattalati jël na ay mesures ngir soulager askan wi L'Indépendant yéene kaay mel ni ku naan koo nattal nañu ñawal nañu ndax fukk ak benn ci mesures yu am doole moom président Macky Sall jël na ko ngir wàññi njigug jund gi mu wàññi njëgu location yi la soleil yéen a kaay ko wàññi na ceeb wàññi na dëwlin wàññi na suukar wàññi na frais de scolarité moom président Macky Sall Omar Sow ci turbine yéen a kaay ne ndigal jëfe de ndax képp koo xam ni jàpp nan la jëfe woo ndigal gi nguur gi nag dina dal sa kaw Omar na njëg li wàññee koom ci waxtoom la ñëw ndax sénégalais loo ci mënti waxit jàmbatoon nañ ko ba sonn tey nag bu président Macky Sall jëlee budget bu réewum Sénégal téeméer boo jël juróom benn fukki ci 2023 bi ñu daal di koy def ngir nag askan wi seen nekkin ñoŋ dañ ko war a jaajëfal ca yem de ndax nguur gi ci bappam nañu taxawal ay comité yoo xam ni ay comité de veille la ngir nag njëg yi ñuy saytu wàññeem mi ngi amam déet képp koo xam ni jàpp nan la jaaye woo njëg yooyee ñu rëq sa ndigg laas ne ma booba si te yóbbu na papa sow retraite l'observateur ne ma doomu jàmm gën gi dee jaare na fa daal di dugg fa yàllaaxu ci cour des grands l'observateur ne ma desal ak man ndax tës bi tey maa ko yor lu li si njaan ab soxna ci bappam moom la ñu tuumaal ne dafa lekk doomam ñu daal di koy dóor ba mardi taali génnee ko dëkk ba ak lu mën a am mbokk yi nani ñaan jàmm te di yendoo